Euh, parce que euh, aussitôt tamit euh, di di leen baalu ak ndax suñu yaay ji nga xam moom la nit ñi ñi ñaaw ñaawte fii ñu ñu ko def rafetul ci daru Sénégal. Mhm. dama ci doon dugul rek pour entreprendre tout rek. Mhm. parce que liggéey moo ko tax a jóg. dëgg la service ci réew moo ko tax a jóg. Mhm. kon képp koo xam da nga jël pour def nii nga ko def moom may mun a yaa ngi ci bu fekkee ni bokkoo ci ñu ak lu mu a demee su fekkee ci ñun nga bokk boo ko defee tegoo ko fenn lan waxante dëgg. dama njort ne ñu ko def ci yenn. non damay damay wax rek dama ne su fekkee ni ak ci fu mu mën a jógee. ci noonu laa ko mën a waxee fu mu mën a jóge parce que wax ji bari na coow li bari na. Mm. ndax ku nekk da ngay xalaat ku ne da ngay xalaat am na ñoo xam dañuy xalaat ni sax xëy na ci waa Pastef la te laalewuñu ci. jërëjëf.